xale yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que xale yi bu nekkee xamul seen ëllëg naka lay mel ndax ñi nga xam ne ñu nànk réew mi ñu ngi yàq bu dig bëccëg dañuy yàq avenir xale yi xale yi li ñuy def xam nañ ko de dañ ko bokk ak ay mag yoo xam ne nag ñoom jóg nañ fippu ni lii dafa war a arrêté mais xale yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que dofuñu duñu ay ay parental monsieur le premier jërëjëf euh, maa ngi métti lu évidemment euh, kër Mbaye Diagne kër gu ñu gu ñu dal ca Tëngéej euh, suñu xarit la suñu mag la waaye yaakaar naa ni mu ko waxee loolu mooy li motivé action boobu parce que lépp luy symbolisé tey ku jege chef de l'État wala bokk si moom évidemment cible nga parce que dañuy jàpp ne si nootkat yi nga bokk loolu moo waral sa xale yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que xale yi bu nekkee xamuñ seen ëllëg naka lay ndax ñi nga xam ne ñu nànk réew mi ñu ngi yàq bu dégg bëccëg ci yàq avenir xale yi xale yi ñu def xam nañ ko de dañ ko bokk ak xam ne nag ñoom jóg nañ fippu ni lii dafa war a arrêté mais yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que dofuñu ay ay parental monsieur le ministre Macky euh, maa ngi métti lu évidemment. Euh, kër Mbaye Diagne. bu ñu dal. ca suñu xarit la suñu mag la waaye yaakaar naa ni mu ko waxee loolu mooy li motiver action boobu parce que lépp luy symboliser tey ku jege chef de l'État wala bokk si moom évidemment cible nga parce que dañuy jàpp ne si nootkat yi nga bokk loolu moo waral certain